ñu ngi jël ay kàddu ci ndigalul sëriñ Abdourahmane Mbacké mi président honneuru convention universelle du Baol ngir jottali ak cantam ak mbégteem ci liggéey bu rafet bi nga xam ne def ngeen ko ngir gën a ñaax gone yi nga xam ne ëllëg ñoo war a doon ay citoyen yu wóor ay murit saadix ay tijaan yu wóor ay xaadir yu wóor ñu ngi leen di xamal ne sëriñ Abdourahmane nee na lii héritage la te mën nañ ko tàmbalee ci borom Touba 33 ans wala 32 ans de privation d'exil yoo xam ne mi ngi ci loxoy tubaab yi bis bu yàlla sàkk ñu koy jéem a lor wala ñu jël bakkanam lépp sëriñ bi muñ ko kon nee na ngeen di muñ bu ngeen toogee añu leen ngeen muñ bu ngeen toogee reeru leen ngeen muñ ndax sëriñ bi nga xam ne mooy suñu exemple wax na ko doxe na ko bind na ko sabran jamilan laa la kasula innal kasula laa yaf waxun ji la dellu muñ muñ ko rafet bokk na ci muñ gu rafet nag am ba pare bañ a beew am ba pare bañ a beew xam ba pare bañ a beew xam ne yàlla la bind président bi wax na ko léegi muy wax bu xóot sunu borom moo nu bind moo nu jox dund moo ñuy rey oxygène bi du la ko fay ko te mënoon na ko te boo jëndee ndox di ko fay ni mu sàkkee oxygène noonu la sàkkee ndox noonu la sàkkee jaww ji ngir yombalal la dem beeg dikk bég lépp loo soxla ci biir suuf si kon sëriñ Abdourahmane nee na ngeen doon yi ay jullit yu wóor doon yi jéem a doon ay murit saadix yu wóor sàkku xam-xam sàkku win wu rafet bañ a wone genn lenn lu dul yar ak teggin ci kaw ki leen di xamal ki leen di xamal mun leen koo fay. sànq salam nee na woon dem leen sàkku ji xam-xam donte da ngeen di dem ba Chine. sàkku leen xam-xam bi ngeen feeñee ba bi ngeen di suulu te kooku mooy modèle Touba gii li tax mu doon deuxième ville du Sénégal te léegi mu jiitu Ndakaaru loolu am na mbóot am na secret te Touba mooy doon moo doon dëkk bi nga xam ne durant le sommet de l'Istanbul en 1994 moom la Nations Unies désigné comme ville modèle dans le vingt et siècle dugg leen ci archive yi ngeen xool te loolu duñu leen ko faral di wax lu tax muy ville modèle modèle loolu la Nations Unies wax donte am na fu ñuy nangoo ak fu ñuy euh, gàntale leen nag ci li ñuy wax waaw dañuy wax rek te far fi nga xam ne fii mooy suñu pas-pas ak suñu ngëm-ngëm sëriñ bi nee na ngeen sant kii nga xam ne nag moo leen defal teraanga ji ngeen sant ko ndax jërëjëf dafa yàlla ci diggante nit ak moromam bu ko defalee teraanga rawana ju mel nii nga xam ne yéen a ngi soog a tàmbali dugg ci àdduna ngeen xam ne fi ngeen di dem yi ëllëg amaana université Al bokk ci amaana université bi bokk ci amaana UCAD wala UGB wala feneen waaye fu ngeen mën di dem yóbbu leen fa yar ak teggin mooy jar jan gi nga xam ne foo ko jaay mu jar looy wone fii rek tubaab moo la ko ëppale muy xam-xam ci fànnuk saayir muy am-am ci fànnuk saayir waaye am na lu leen manqué fi ne bokk nañ ci njëkk indi 41 élèves fii jox ko Cheikh Mamadou Mourtada ci Al Azhar gii ñu jóge États-Unis d'Amérique ñëw te ñooña seeni parent ñoo ñoom ñoom ñoo dem xool ba xam ne environnement bi am na tuuti insécurité bu fi am ñu ne nañ leen rawale ji environnement boobu ñu leen rawale yow fi nga juddoo fi nga màggee fi nga defee lépp fi nga amee raaye raaye bi bañ lay sargal kon sëñ Abdourahmane mi ngi leen di sant di leen gërëm di sant Pape Fall ak njaboot gi di leen gërëm di leen gën a ñaax ndax fa'bud rabbaka hattaa yaatiyakal yaqiin jaamul yàlla ba ba ngay faatu defal lu baax ba ngay fàtt doo doo def lu baax ba mu yàgg nga ne li ma def doy na déedéet suñu borom mooy aji tabe ji mooy aji yéwén ji mooy aji mooy lépp yàlla mi ngi fi lu am la ku am la yàlla jëmm la yàlla melo la yàlla manifestation la jëmm ja kenn xam ko melo yi xam nga ko mooy kar yi mu ba mu jeex manifestation yaa ngi fii toog ni ci suuf si mi ngi daw eighteen miles per second mille quatre cent kilomètres heure te te mi ngi nii di daw te waxoon nañ la ko bu yàgg alxuraan waxoon na la ko bu yàgg la shamsu yanbaghi lahaa an tudrika al-qamar wala sax wa kullun fii falakin yasbahuun wa kullun fii falakin yasbahuun ñu ngi orbité kon suñu boroom mooy ki nga xam ne moom la Sëriñ Tubaa joxañ mu nangul ko mu nangul ko sant ko nag kon nañ santante wax yi kàddu yi kàddu yi cant la yoo xam ne mi ngi jëm ci jóge ci sëñ Abdourahmane ak way juróom Cheikh Cheikh Cheikh Mamor jëm ci sëñ Pape mii nga xam ne moo jiite convention bi bis ni ki tey bokk naa ci convention universelle du Baol. donc li may bëgg a wax juste ma donner sama parcours rapidement comme ça ngeen xam ne toute est possible dans la vie man ndondol laa dëkk soriwul fii am na ay quelques étudiants yi ñu war a primé bokk nañ ci foofu laa jànge ba am. Euh, ba dem euh, lycée ma jóge fa dem université Cheikh Anta de Dakar ma am licence physique chimie après ma jóge fa dem EIR ETCHER benn école inter état buy jàngale ci ndox ci Afrique ma jàll fa ma dem fa jàngale fa soog a jóge foofu dem Japon def sama doctorat donc université Hokkaido laa nekkoon j'étais à l'université d'Hokkaido à l'extrême nord du Japon dafa sedd trop foofu noonu donc bi ma paree ma décidé ñib si Sénégal pour contribuer aux efforts de développement du Sénégal donc fi mu toll nii bi ma ñëwee après deux ans de freelancer ma tijji sama cabinet Sen Engineering Internationals ñu ngi liggéey ci projet yu mag a mag ci àdduna bi ñu ngi ciy liggéey démb Oil and Gas la woon maa ngi woon foofu j'ai géré tout ce qui est gestion des déchets pétrolières et gazières donc li ma mën la leen di tënkal moo di tout est possible dans la vie euh, donc yaa cinq conseils yi nga xam ne bëgg naa leen ko jox parce que am na fu ma jaar benn bi mooy il faut que ngeen continuer di bëgg seen culture culture mooy lépp ci àdduna parce que mooy tax ma ëllëg fépp foo mën di dem ci àdduna quel que soit looy mën di gis di nga mën a continuer téye sa bopp am sa fulla am sa fayda am respect respect c'est très important donc je vais pas boo ko vais pas sur la culture boobu benn la bu ngeen paree foofu noonu il faut ngeen jàng il faut bien sa former parce que lépp loo leen ngeen bu ngeen eggee benn niveau bi lépp lu nga xam ne nit mu ngi ciy formé wu dem leen ngeen jaamu ko. il faut bien se former li japonais bi di jàng war ngeen ko mën a jàng li américain bi di jàng war ngeen ko mën a jàng léegi formation boobu c'est très important beneen bi plus tard cinq ans plus tard dinaa leen gis il faut ngeen wuti expérience expérience parce que expérience boobu moo leen di may ngeen mën a jël ngeen mën a am liggéey ba nga xam ne seen dëkk di ngeen seen waajur di ngeen leen di ci mën a teeral expe après expérience boobu patience patience c'est très important dina metti trop dina metti trop waaye bu leen mos a bàyyi gëm leen ne dina mos a ñëw temps la loolu mooy patience et beneen bi pour terminer vraiment pour terminer boy bi ambitious il faut être ambitieux. Il ne faut pas être ambitieux pour l'argent. Il ne faut pas être ambitieux lu ñuy wax fame moo di rëy rëylu euh, lépp lu bees nga nga bëgg ko am non il faut pas être ambitieux pour ça il faut être ambitieux pour le savoir pour la droiture et puis lépp la nga xam ne doomu aadama mu ngi koy def pour yëkkati société loolu war ngeen ci ambitieux soxla nañu loolu euh, parce que àdduna bi que soit américain que soit euh, euh, japonais bi lépp lu ñuy def lu baax ñun en tant que jóge Bawol fii war nañ fa mën a yegg war nañ ko woon a proposer loolu c'est très important loolu laa leen di di di tàggoo te tout est possible dans la vie booy bi ambitieuse merci. yow mi nga xam ne yéen a ngeen ko di ko convention di bool. am na ñu bari ñu wax ci baat yooyu ñu ngi gërëm bu baax xaali moderne moom mi moderne liggéey bi ci ay waxam xam ngeen ne bawal mooy njàmbur mooy kajoor mooy mooy waalo mooy siin mooy saalum ab gox la ci Sénégal wante bu ñu gisee ñu diaboliser ko walla ñu banaliser ko nekkul hasard parce que tubaab gi la woon sëy Touba bi koy indi tubaab yi dañ ne woon bu ñu ko yóbbu bawal ndax dañ koo bëgg baat boobu te boobu bawal liñ ci jublu woon mooy li wër Bambey ay làmbaay ak ñu deme noonu loolu sax moo tax ñu jàllale ko Jurbel ba far Jurbel duggaale ci bawal ak kii nga xam ne Jolof la gën a jege kon bu ñu demee ba mujj lu ñu ne bawal mooy commerçant bay jaay ay bouteille walla ay pot kooku ku ne xam nañ am na lu ko làmb am na lu ne ci biir dara nekkul ci biir dudul ñi ñi nga xam ne ñoo nu colonisé ñoo ko ba ñoo ko joxe noonu ngir bëgg nañu ci ñu gën a suufe lañ bokk loolu rek moo indi baat waaye li ñuy def ay recensement ci kaw ñoo xam wàllu jàng moo xam wàllu boobu man di doon xëy na ñoo xam nan lañ ko jàngate waaye ci sunu jàngat yu wër lu bari ci bari barab yi ak la jiitu tuuti bokk demit naa ne wuute na ak loolu lool waaye ak lu mën a xew sax loolu amul pour amul jafe-jafe kon su ngeen defee lii ngeen def seen mbootaay boo xam ne yéen a ngi yëngut ci lu jëm ci liggéey te ko di ko def ci seen doole ak seen ngor dugg leen ci lenn loo xam ne lu ngeen wërta dugg la ba xalaat bi kon defe naa ne loolu am na lu bari lu firndeel ñu may ma tuuti ma dellu si ci bokk yi témoignage yi ci am gis naa sëñ Basiru damay wax ne euh, sab nawle bu lay waxee wax bu neex bul xoggali ko da war a sëgg laxasaay waat parce que du la jël man sax day ma ñaare boo ko defee sax boo tur bu nu wéetee te nu xuloo bu fekkee xam naa nag xam naa ne jay la moom nag waajuram bi mu ci tudd moo tax ma dellu si sëñ xaadim aw ba bi may tudde doom wallaay booba du ma morom du ma sama morom ci dara ndax gone laa yàgg du ma du ma du ma mag dafa ñëw ci sëñ moto Mourtala ma di ko gunge wax na ba noppi sax xaw ma lu muy wax def na ko téye ma ko sax far ak ñi ñu wuute ci kalit yépp nag man damay wax suñu ay étudiants ne leen ak jàngalekat yi bu leen waaraate di leen waarante ci scientifique sëñ Touba am na ku ko junj def naa ci moom la bindi sëñ Touba dafa xóot lool te gis naa ne saa buy wax. ak lu mu ko jëlee da koy jàngat ci scientifique te loolu mooy xam-xam moo tax xale yi xam ne yéen a am ay bac yéen lañuy euh, jox ay neexal waxoon naa ko keroog fële ci samedi defe naa ne am na ñu ko juñu ci biir wax ji sax waaye su ma ko waxul woon keroog du ko waxaat ndax damay mel ne damay jël waxi jàpp yéen a ngi soog a dugg jàpp leen ne lii ngeen am jiitu seeni nawle bu leen jàpp seen bopp boroomi xam-xam bu leen jàpp seen bopp ay ay ay kilifa jàpp leen ñuy soog a laxasaayu bu leen nekk nit ñu diplômé waaye nekk leen ay intellectuel diplômé bokkul ak intellectuel diplômé mën ngaa jàng def sa examen jàll nga am diplôme boo bëgg a am waaye nga nekk intellectuel mooy li ngay jëlee ci biir génn ci say ci bopp loolu am ngeen chance kon bu leen jàpp seen bopp mukk borom xam-xam bu leen jàpp jàpp leen ne yéen a ngi soog a tàmbali muy wax sax bu ngeen koy def yéen ci def lettre walla ngeen def seen lu ngeen di def cours yu ñu leen jox bu leen ko génn sànni jàng leen ko parce que cours la te leen ko jox borom xam-xam na waaye bu ngeen ko tegee ba noppi nag bala ngeen a sori génn leen ci seen yëfi bopp loolu mooy xam-xam. wante yor diplôme di wut liggéey pour ñun bokkul ci sunu gis-gis loo mën a yor diplômé nekk xam-xam borom xam-xam moo ko gën a wóoru diplôme nag moo lay signalé ne la fii nga war a jaar seeda seeda la shahada sax la ko arab yi tuddee kon loolu na ngeen gën a laxasaayuwaat gën a def la suñ mbokk ñu seen man am naa ay xale yu ma ko wax sax ndax nii wut leneen waaye am naa ay doom jigéen dafa ay docteur lañ am ci physique nucléaire loolu du eggale leen foo xam ne mooy yéen jàng bu leen jàngal yéen ñi def diine tamit gis naa ne sunu xale yi nga xam ne ñoo def licence ren téeméer lañu ak ñaar fukk ak ñeent def naa ne sëñ Xaadim leeral na ko mooy ñun sunu licence bu gouvernement Sénégal ñu leen ci sant bu baax ñoom njëkk am licence bu ñuy bind science religieuse option nangam ingénieur wala dangam loolu état di ko signé defe naa ne bari na wala mosul am ndax dañoo gis ne ñun ñu ni ko doon kër waxee léegi jànguñu culture jànguñu civilisation arabe jànguñu bu français ba bu anglais ba li ñuy jàng mooy xam-xam ak diine làkk bi ñu koy làkk nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne man ta'allama lughata qawmin amina makrahum làkk dañ ko war a man damay wax lu leex léegi sax mu ëpp damay ne alquran bu doon ci séeréer la wala saraxule kon benn baatu arab bi ñu ko xam parce que wax yàlla bi mooy ci intéresse kon nga nekk arabisant bi wala nga nekk francophone bi parce que jàng langue boo jàng boo deful attention da nga jël seen culture boo gisee ñu fexe ba xale yi di leen boole lu bon bon ñetti làng te suñ ko mënee weesu danañ ko weesu mooy dañoo bëgg ñu dese seen bopp dese seen culture dese seen civilisation bu def nag am xam-xam làkk ba nga koy jàngee nag bu fekkonte ne lu jëm ci science la wala li la mën nga koo jàngee ci beneen làkk boo xam ne moo xam bu mu mën di doon ñun lañ soxla mooy xam-xam ba te xale yi def naa ne loolu yëpp gis gëm nañ ko bu baax ndax gis nañu ne ci wàllu diine ak ci wàllu xam ñi nga xam ne ñëpp ñoom ñoo def licence wala ñu ci ëpp am na ci lu mat ñaan xaw ma ñu ci nekk professeur fàttewuñu xaw ma lim bi waaye ëpp na yoo xam ne seen mémoire yëpp ñu ngi ko def ci kilifa diine yi nekk Sénégal te kenn waxu leen ko ndax ñun dañuy wax ne pédagogie bi gën a am solo mooy jàngal nit bàyyi ko boppam waaye jàngal nit nag nii ngay waxee nii ngay solo fii ngay jaar defal ni kooku du jàngale kooku wane sa bopp la xale yi nekk ci dëkk bi muy nekk yoo xam moo xam moo xam sànq université bi nekk Dakar wala bi nekk Bambey wala bi nekk Touba wala bi nekk Saint-Louis ñëpp a nekk ñëpp amu ci kenn koo xam ne ñii nga jóge ci kenn xamul mais am na ci yoo xam ne sax bi ñuy ñëw Touba seen bokk dafa tiit ndax da ngeen bu ñu leen di dem dañ leen di sukkuloo ko raam loolu sëñ Touba loolu wees na foofu sëñ Tuubaa ku borom xam-xam la ku civilisé la ku xam adduna la amul intérêt ci nit ku ko topp ak ku ko topp loolu kenn affaire kenn soxlawul loolu mës sa campagne yi pour nekk ab taalibeet mës ko wax kaay topp ma yàlla ak yonent bi la topp loolee nag ku ko woon nit bu demee ba xam loolu danaa xam ne yow mii du wóoloo ko ci sa bopp li may wax mooy résultat boo ko defee léeg-léeg da ngay dem ba defe ne yowa boo demee ba defe ne yow moo tax xale yi ma di leen wax ne bu leen damu seen lii ngeen def ba am ay motion yu baax bu leen jàpp leen ne defagu leen dara dem leen gën gëstu dem leen ngeen jàng nga xam ne baccalauréat baccalauréat diplôme bu doy waar la ndax boo ko amee surtout nag yéen ngeen am ay ay motion yu baax et très bien assez ak yu demee noonu da ngeen di daal di defee ne yéen a ci nekk mais jàpp leen ne xamu leen dara bu leen boolee seen bopp bu ngeen demeen ba am seen doctorat ak lu ngeen man di am na ngeen woyof na ngeen jàpp ne yéen a soog a tàmbali jàng ndax jàng kenn du ko mën xam-xam kenn ko am saa boo demee ba defe na xam nga ko rek moo tax xale yi mu di leen wax bu leen di bu leen di bu leen di nekk nit yi diplômé diplômé rek du ab du wax du wax ji wax ji mooy nga nekk boroom xam-xam di génn dara ci sa biir di fexe bay def dara loo xam ne yow lii boo génnee ñu xam ne ci sa bopp loolu foo ko defee fañ lañu lay fekk am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci barab yu am solo xëy na sax amuñu ay kii waaye nag li am solo kon mooy yéen da ngeen góorgóorlu te xam nga am ngeen sas université Ahmadou Bamba nag dëgg la am na ay condition parce que ñëppee jaar di tax moom fokk nga am ñetti làng yi fokk nga arabe bi mooy ñi nga xam ne jàng nañ ba baccalauréat ci loolu mais fokk nga am langue français bi ak anglais langue français bi moom la ñuy liggéey suñu réew anglais bi ni ngeen ko waxee léegi ni ko suñu kii waxee léegi mooy langue bi nga xam ne moom la adduna bi di doxee kon yéen na ngeen fexe ba gëstu continuer bu leen doylu ci ci jàng bu leen ne jàmm man nañu fop fu ngeen fu ngeen leen fekk boo génnee sa classe jël sa ay cours ba pare na nga ko fexe ba xam la nekk ci kuuru yëpp boo noppee na nga seet la nga cay dolli nga dolli ko ca la ca desit nga jéem a gëstuwaat pour wutiwaat loolu bu ngeen ko defee da ngeen nekk ay qualité ba noppi dese nag seen i valeur seen i valeur mën ngeen nekk ay ay nit ngeen nekk ay nit ngeen nekk ay nit bañ a yëkkati seen bopp ndax yëkkati sa bopp amul maanaan nit bu ko def nit képp koo xam ne dafay wane boppam ak di yëkkati ak jël matériel jiital ko ci àddunaam kooku du nit kooku danga ko war a yërëm te loolu dafa bari loolu dafa am ñoo xam ne daanaka bu ñu waxee sax te boolewuñ ca matériel dañuy defe ne dañoo dañoo dañoo gërëm loolu bu leen ca bokk yéen matériel jumtukaay la nekk bi jëmmukaay damay wax ne xaalis dafa am ñu ko xam ak ñu ko ñu ko bëgg ki ko xam mooy ki nga xam lu mu cee def comme ñoom papa ñii ak jigéen lu mu ciy def di jéem am ci ëllëg ak tey kooku xam na xaalis parce que du ko perdre mais ki ko bëgg nag mooy ki nga xam ne defe na ne bu ko ñàkkee amul dara ku ko amul amul dara fu mu moom lay waxee moom lay defe moom lay xoolee moom lay noppee moom lay lépp lu muy def jàpp ne alal la kooku du nit kooku kenn du ko jàpp ni yéen bu leen bokk ci loolu jàng leen am xam bu leen nit yëkkati ba tax ngeen yëkkati seen bopp nit da lay yëkkati ngay yokkati ko kooku nit du ko def bu la yëkkati toogal fa nga nekk bu la mënta ñàkk yëkkati bu boobaa dana diis ndax yëkkati ko toog rek naa du jóg waaye bu la tàmbalee jàpp sa mbagg cëpp nga jógal sa bopp kooku doo jot kenn kon mu ngeen góor góorgóorlu jàng te seet li nga xam ne ni fonk seen kilifa kon PAM ñu ngi leen di gërëm bu baax ndax man day wax dëgg yàlla euh, xamewu moo ko sax nii ndax maa ngi soog a dégg sax lu demee nag ba ma ko sax dégg ak ah, xaw tuuti ma xaw a am kii waaye sëñ Moutalla man comme ajoor la moom ma ne Pape ma ne ko Pape Fall bëgg lu baax la waaw dafa am ñu bëgg lu baax bëgg lu baax na boo ko defee te ko wut foog nga am ko parce que tamit loolu yàlla moom ku màndu la te doyul li mu yore dara kon yow ak ñu ñi ko àndal muy ñoom baara ak ñi nga xam ne yëpp yéen a ko bokk ngeen liggéey xale yi daal ñu ngi leen di gën a soññ ñi ngi gën a bu baax waa convention bi pare nañ pour xool lépp la xam ne jàpp nañ ne nañ koo liggéey li ci des mooy ngeen góorgóorlu yéen itam jàppale daar yi waxuma ñun de ñun moom laaj ñu dimbal laaj ñu daal donc loolu waxeen la waxeen la mooy daanaka dafa amul solo ci li li liggéey bi ngay def dafa am liggéey yoo xam ne boo ko dee def bis boo ko sukkandikoo ci ay loo xam ne du yàlla da am problème parce que du sotti yu sart si jàngale dafa métti sart sa li ci nekk dafa métti loolu loolu fokk nga wut ay jumtukaay boo ko defee yàlla dimbalee la yàlla ñëpp la fi nekkal bu ko defee loolu itam waaye nag na ngeen wut seen i kees yoo xam ne da ngeen ci dajale seen ñaari dërëm di ko jox daara yi am na ñu ko soxla lool xale yi nga xam ne ñi ngi jàng sax am nañ moo xam étude français la ñi ngi ci dëkk yi am nañu coono bu ko defee ngeen wut seen commission bu xool bu koy def di ko réccu liggéey la boo xam ne moo gën dajale d' accord yéen a ngi tabax seen i étage yéen a ngi seen loolu d' accord baax na mais lépp ki lay des kon dawal ci nag comme yàlla def na musal na leen ba ngeen xam xaalis te bëggu leen ko kon li am solo mooy bu leen profité ci lool parce que la lu ñëpp la am na ñu ko bëgg ñoo xam ne tey benn dërëm pour ñu génn ko def ko ci lu baax daanaka fu ne seen comptabilité dana ko jaar te loolu jafe ko bu ko defee nag yéen ñiy jël sa poos jekki-jekki defe naa ne am na ko wax léegi na 10 millions est ce que prévoir na ah jàpp ma ko kon fi dafa gis ne lu baax la rek bu jekki-jekki defaloo ko ku mel noonu amul calcul parce que diine conviction la du calcul calcul soo ko defee ci diine rek da nga am problème su ma defee nii am calee kooku dara kooku nag moo jàpp lu baree bare bare ci ci ci jamono bi baree bari loo xam ne diine calcul lañ koy def su ma defee nii su ma jiitee fee su ma doxalee fii su ma nekkee nii fii su ma jegee fii su ma ko waxee nii yooyu yëpp bu diinee loolu dafa am am faiblesse kon na ngeen continuer jéem a fexe seen dimbalit ngeen di ko def tabaxi ay ay hôpital baax na mais wut leen loo xam ne da ngeen ci jagale bu dee ñaari dërëm sax ngeen dem ci daara yi am na daare yu bari yoo xam ne amuñu dara sonn nañu lool am na ci ñoo xam ne aussi élèves lañu fañ nekk seen waajur mënul leen dara te bourse yi yor parti bariwul loolu lépp ngeen di ko gëstu wut nag lii ñu wóor ñu di ko joxe ñoo xam ne xaalisu tiitalu leen bu ko defee loolu da ngeen ci am kon nag loolu rek moom la ci doon wax kon ñoo ngi nuyu ñëpp di nuyu njaboot ci suñu ginnaaw di leen sant bu baax a baax di xam rek Moustapha li ñu koy wax rek moom itam jàmbaar la jàmbaar la parce que moom li ma ko waxee rek la moom laa njëkk a dégg koy woy koy jàng dékkati sa baat ci New York boole te boobaag léegi ëpp na fanweeri at kon loolu effort la bu ko neexee nag mu def leen bu ko neexee nag mu révolutionnaire wax leneen waaye nag ci biiram moom lu baax rek la bëgg waaw kon nag ñoo itam ñu ngi koy gërëm di waaye nag yuusu boobu gën kooku moom dama koy teel wax fii waaw kon nag ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant asalaamaaleykum yéen journaliste yi tam ñu ngi leen di sant bu baax bokk na ci fii ci ci fii ci ci euh, projet bi ci yoon bi miir boobu faculté bu communication lañ ci bëgg a def waaye nag ñun dañoo bëgg a définir suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu jàngale communication waaw déontologie ak yëpp dañ koy dañoo bëgg définir ñu ko suñu bopp waaw euh, ak éthique loolu baat la bu bu làmb lu bari mais ñun dañoo bëgg a toog définir ko ne lii ak lii mooy tax nga mën a nekk jàng parce que diine dafa am solo lool bas nañ ko fi ñu ngi ci ñu ngi ci liggéey dañoo nekk ci euh, euh, benn di fa tabax benn rectorat wante li am solo mooy fas nañ fa yéene def communication parce que dañ ko bëgg a def lépp dugal ko ci diine euh, li nga xam ne mooy convention bi tamit bu soobee yàlla dinañ jàppalante ak yéen ba yu mel ni lépp lu ngeen ci defee am nañu envie yu yaatu te lépp nga fa te lépp luy farata waxuñu nag ay kenn xamul waaye nag lépp loo xam ne lu jëm ci jàng la lu jëm ci lu nit di jariñoo amuñu benn problème boo xam ne mën nañ la ko libéré nga def la nga xam ne ñoom moom nga bëgg a def kon ñu ngi gërëm ñëpp di baloo ak ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñun nag euh, yàlla dafa dogal daaray mbindum loxo càmmoñ mi dugguñu ci waaye tukki yi ñu tukki ak euh, li ñu gis moo daal li ñuy amul àlluwa euh, ci te nekkuñ ci domaine bi ñu nekk Euh, dafa tax ñu ñu jàpp ne jaadu na euh, ñu ñu def lii pour euh, xale yi bëgg am njàng gën ko bëgg góorgóorlu ci parce que yaakaar na ne yéen ñëpp xëy na sax yéen sax du ngeen ko mën a xam ndax at mais mag ñi xam nañu ne Bawol Njàmbur Saalum partout y avait des gens qu'on pourrait appeler aujourd'hui milliardaires mais malheureusement quand on a beaucoup d'argent et qu'on n'a pas le savoir nécessaire amuñ xam-xam bi nga ko war a téye dañuy fonctionner avec le cœur trop avec le cœur finalement on finit par tout perdre et malheureusement beaucoup non seulement on dañuy dem ba tam tombe faillite mais biñ koy def fekk ne seen doom yi am na du jaaw euh, ba nga xamante ni bi la euh, amatuñu amuñ amuñu amuñu xam-xam ba euh, amatuñu alal ji muy tumbaranke ci ñoom loolu moo tax ñu ne pour éviter lu mel noonu ñu teel a xamal xale yi ne mag ñooñu eh, amoon alal te ñàkk ko eh, lii prouvé ne ñàkkoon a xam moo ko waral mooy eh, ñim si bokk ko nekkal ñu ay libaane ak ay français tey gisatuñ leen fii mais ñu bokk pense que dañoo dañoo fay ñoom itam non ñoom ñoom ñoom tey jii la gën a baax seen njaboot yi industrie yu bari ñoo ko yoree Dakar ay ay ñii ay avocat ñii ay dentiste lañu ñii ay restaurant de électrique lañ yore donc euh, pour dire que ne xam-xam daal mooy li nga xam ne bii mënuñ nekk li nga xam ne aussi dama koy faral di wax doomu aadama ñaare bu amee soxna wala mu am mu jigéen am borom kër ba yàlla dogal mu tabax kër amul njaboot di leen dundal di jënd yére day daa ni toñ dëkk bi loolu mooy li gën a ndaw ci waajur ba defal doomam Eh, bu dee loolu rek de dàquñu ko mala yi eh, picc mi de tàgg ci kaw nen fa toj ko dem wuti di ko cof di ko jom mu lekk ba mën a naaw dem am na ci mala yoo xam ne dañuy eh, nettoyé sax seen doom bu ñu xëyee dañ koy mel ne koy sang tey am na li nga xam ne bala xam ne ko kañe yeeg jaar yeeg yu ñu koy waxee yooyu yëpp ay kër lañ am ci suuf di indi dund jox seen njaboot ba seen njaboot mën a dem donc bu ñuy defee defe ne loolu mooy mbir mi nekkul foofu mbir mi ñu li ñu war mooy li nga xam ne ñoom mënuñu ko te ñun ñu man ko mooy jàng am xam Euh, li koy prouvé mooy ñun tey dañu xamal ko tuuti ñu ngi soppi suñu dëkkukaay di soppi suñu yére di soppi suñu oto kamera yi ngeen di filmé yëpp ñu koy soppi mais xoolal mala yooyu ba àdduna soo ba léegi kër yi daan am la am nan daan dunde la ñuy dund na doxalee doxalee euh, benn luy luy développement ex nekkul ci ñoom donc il faut vraiment que ñu xam ne ku bañ sa doom amel ko ax fexeel mu jàng suñ sang bi Xaadimu Rasuul santuñu lenn lu dul jàng santuñu lenn lu dul jaamu yàlla santuñu lenn lu dul liggéey tey li prouvé ne euh, loolu moo fi nekk euh, ku tedd kii sëriñ Mountakha Bassirou yàlla na fi yàgg te wér gis ngeen université bi muy teg xam xam-xam rek a tax te xam nga ne njabootam yëpp wut nañu xam-xam donc bu koy defar daa bëgg na njabootam ñëpp am xam-xam maam moo moom sëñ laa xam nga ne ci loolu ngeen gis sëñ Abdourahmane Gaynde Fatma yi nga xam ne sëñ Cheikh Mbacke ñëpp jàpp nañ ne ah, moom da cee da ko dafa bëggoon doom yi ñëpp am xam-xam ba këru diine yu nekk ak ñu sax jullit dañ daf leen di eh, jàppale ñu ma dem à l'étranger eh, di fa di fa jàng eh, mu fekk dañ def parce que moom li ko soxloon mooy xam-xam bi nga xam ne bii moom mënul ñàkk est boroom dafa mat li li ma lay wax foofu mooy tey li li nga xam ne bi moom may ñu ñu mën ko te ñu soxla ko moom mi ñu koy defal waaye lim ñu may ñu man ko duñ ko defal de tey jii xam nga ne aw jiw kenn ni ci ñun ñii mënu koo defal suuf soo ko ji mënuñu ko defal taw naaj ngelaw lu koy ñoral mu ñu ko defal waaye nag ji ko bay ko récolter ko transformé ko tibb ko lekk moom may ñu mën ko duñ ko defal donc bu ñu nax suñu bopp lu yàlla wàccoon ak ñun ay santaaneem amut lenn lenn doo nga xam ne ñu koy wutloo lu dul xam-xam ngir jëriñoo lim lim ñu defal euh, xam-xam nag moom euh, dafa nekk loo nga xamante ne bi de mooy sàmm doomu adama mooy sàmm am réew mooy tax nit ñi mën a déggoo waaye bu xaw amul day xaw a mel ne euh, ne doomu aadama ji nit day dama yàlla baal gis ngeen ak jur léegi euh, léeg kenn ko yor aw yat euh, di ko di ko di di ko sàmm parce que ñoom mënuñu jax mënuñu mënuñu mënuñu dugg ci amuñu code bu ñu bu ñu leen tegal ñu ñu war ci euh, tegu loolu moo wax tax te doomu aadama nag moom ci xam-xam lay xam ne mu nekkee moroomam ci la xamee aqi moroomam ci au fait damay dégg toujours ñu ñuy wax naan ñu ay droits doom l'homme ak et tout li am solo mooy xam luy àq doomu aadama nga jox ko. parce que xale bu ndaw bi dul a judd nga nekk ci biir néeg bi kenn fekkiwu ko boo koy dompat boo koy jaf lu ñaaw mais mun laa porter plainte munu ko wax kooku dangaa kooku boo boo ragalul àq doomu aadama da nga ko lor waaye boo ragalee nag àq doomu aadama euh, foo nekk koo nekkal da ngay xam ne kenn kaa ngi day gis ma suñu borom ba da nga sàmm sa diggante xale bu ndaw bi dul juddu moo tax xam-xam moom day du munta ñàkk ba war a ko wut